mooy quand on parle de dérive je wax dëgg yàlla il faut être euh, juste quoi et éthique voilà un jeune sénégalais muy Ousmane Sonko parce qu'il s'agit d'Ousmane Sonko euh, 2014 mu investir u fii et nous avons un pays merveilleux boo xam ni am ay valeurs soo nekkee sax doomu gardien mën nañ la def nga nekk président de la république soo nekkee doomu ministre mën nga mën nañ la folli un pays boo xam ni gisul joola gisul pël gisul séeréer et il donne une chance extraordinaire à chacun et dans ce cadre là quelqu'un comme Macky Sall il arrive au pouvoir c'est merveilleux c'est extraordinaire à partir de nos écoles publiques nga jël quelqu'un comme Ousmane Sonko qui vient avec son style qui vient comme tu le disais tout à l'heure di yéeg di dem di dénoncer di xeex moi personnellement je l'ai côtoyé à l'Assemblée nationale cinq ans et cinq vu un Ousmane Sonko pendant cinq ans c'est des arguments très pertinent qu'il mettait donc sur la table qu'il défendait et les Sénégalais di ko gis di ko apprécier et qu'est-ce qui s'est passé on a parlé de ce qui s'est passé c'est a eu des complots d'État ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une radiation ce qui s'est passé on a voulu piétiner dignité non, en 2016 non non non oui mais attendez oui 2016 et pas empêché d'être classé euh, troisième à la présidentielle de 2019 ah. et c'est un système qui commençait à dérouler donc di nga am capacité de résistance di nga bañ a résisté di nga dem sa résistance tamit mën na bañ a fës di dem nga nekk ci plateau yi ba mu dem ñu tuumaal la indi la situation yoo xam ni réellement mu fës mu leer ni kii dañ ko bëgg rey dañ ko bëgg yàqal dañ ko bëgg a toroxal ça c'était en 2020 2021 nous étions à l'Assemblée nationale et la communauté internationale comme nationale ñëpp gis ni lii am na loo xam ni rax na nous je me souviens aussi quand j'étais à l'Assemblée nationale même pour lever l'immunité parlementaire ñu commencé jalgati ay mbir quand nous avons demandé à l'Assemblée nationale pour ñu mën a am benn commission ad hoc pour mën a instruire entre guillemets au niveau de l'Assemblée nationale parce que kooku c'est permis nga mën a xam nga mën a am possibilité indi ay médecins ay docteurs euh, convoquer la gendarmerie au sein de l'Assemblée nationale pour nga euh, fonder sa intime conviction pour xam ndax da nga war a lever immunité parlementaire ou pas on nous a dit non c'était pas possible ñu dem conseil constitutionnel alors qu'on était au conseil constitutionnel ñu convoqué yóbbu ko fële euh, au tribunal def ko sous contrôle judiciaire alors que ça devait être suspensif ainsi de suite donc ay procédures yoo xam ni ñu koy tegloo di avancer simplement pour broyer un patriote un fils du pays qui comme tu le sais comme tu l'as dit était en train tout simplement, tranquillement, d'avancer en s'appuyant sur sa constitution, en s'appuyant sur le droit, en s'appuyant sur sa dignité et sa façon de voir le pays et le Sénégal. Et après, c'est de l'abus, procédure respecter tout ko respecter tous nos droits. Et vous voulez quoi? mooy mun a les droits de l'homme ak notre constitution sénégalaise deuxième article bi ci nekk ci droit de l'homme xam mooy lan mooy la résistance à l'oppression résistance euh, euh, même rek même c'est très important. li ma non c'est très non non important. Euh, c'est pas insurrection. waaw xam nga kooku su neexee. ministre bi la la ligne est tenue. elle est tellement tenue et la limite est très tenue. elle est tellement tenue quand ah. on est honnête. Ah. on peut voir du bon côté. quand il y a d'autres visées ah. on peut facilement basculer de la résistance à l'instruction d'ailleurs d'ailleurs dama ma rappeler benn épisode non mais mais mais c'est important quand même que je je vas-y donc jusqu'au bout ba la dernière euh, chose qui s'est passée on a du mal euh, euh, ay chef d'accusation ay ay vol de portable et cetera et chaque fois qu'on lève keroog j'étais bien suivi quand la décision de justice bi ñu jël loo xam ni pendant des années il y a eu des morts c'était contre un viol euh, possession d'armes menace de mort etc et après rien après c'est simplement corruption de la jeunesse tout ça pour ça et tout le monde de toute évidence s'est rendu compte que la décision de justice ne correspondait pas aux enjeux et une décision de justice dama ko yàgg wax sooy jël justice sooy jël décision da ngay agir ci fait yi mais da nga war a agir tam ci situation maanaam nga jël benn décision boo xam ni day fay ay mais nga jël décision boo xam ni day gën a indi problème et la preuve d'ailleurs les événements qui ont suivi c'est pas une affaire de Ousmane Sonko ah c'est le peuple sénégalais comme toi Maïmouna j'ai entendu par rapport à cette question j'ai entendu d'autres pour dire simplement c'est du non-sens cette décision de justice et après quand cinquante-cinq jours chez lui vous voulez quand même que. Euh, alors perte, non euh, alors. Euh, attends c'est important. perte profit ñu mu fàtte loolu ñu ne non non il devait être euh, mouton et cetera. alors non cette affaire là elle est très importante je dis soyons honnêtes soyons justes xam nga en Europe ou bien les pays avancés les démocraties avancées le délit de la provocation dafa nekk benn délit boo xam ni ñoom ils plus plus fins un policier peut venir ba nga def benn commettre benn délit mais ñoom délits yu mel noonu dañ ciy tenir compte pour mën a justement juger joxe ay décisions mais quand ici de 2014 ba 2023 ñu lay provoquer di la pousse di la pousse alors ça vous ne le mettez pas en exergue vous n'en parlez pas li ngeen di gis rek mooy sénégalais yi di wax rek simplement xamuñu euh, ku tooñ ku fayu la ñu xam